yàpp euh, yàpp xam nga fii championnat bi c'est pas professionnel dooy affaire de contrat ak affaire yooyu des fois am na ay club yoo xam ne dañ lay fay douze mois sur douze am ay club yoo xam ne dañ lay fay saison bi kese ñun Douane dañu doon fay saison bi su feyee dañuy fay gisee suñu gañee ay coupe dem finale yi suñu joxee suñu prime de match day mel ni sax dañu fay douze mois yëpp wala presque sax treize mois ba quatorze mois mais ak Covid bi mu amee nii Covid bi mu amee si mois de mars bi fin mars bi dañu fay dañu mu avril dañu fay fin mars après mais bi dañu dañu dagg moitié salaire bi après si nañ ñu gëjee fay ba léegi waaw difficile na moom comme nu ma la ko waxee rek yëpp difficile na mais alhamdulilah quoi yàlla ak ñu suturaal ñu lu ñu bugg def yëpp ñu ngi koy def moom macha allah. Euh, club yi tamit dañu war a jàppale joueurs yi ak joueuses yi parce que benn instant joueur bu bàyyi léppam ñëw si benn équipe si équipe boobu la yaakaar kon équipe boobu daf ko war a delloo njukkal fédération bi tamit war nañ ko mooy sponsor yi war nañ mun a ñëw jàppale fédération bi parce que tamit sans sponsor tamit fédération bi du dox. parce que am nga basket bi c'est pas professionnel en plus ba tamit yéen tamit journaliste yi yéen a gën a ñëw tamit jàpp ci xam nga yëkkati waat sport bi parce que tamit benn instant suñu sport su doxee tamit yéen am ngeen si wàll bu bëri sax parce que mun ngeen ko médiatiser mun ngeen ko jaarale si yoon mun ngeen ko def lu mu war a demee yëpp moo tax benn instant tamit xam nga liggéeyu ñëpp la daal liggéeyu mbooloo la